jëlu ma yow da ngay fay ko sax weer. waaw ah. man suñu borom moom moom damaa génne ci ay weer. waaw ah. yow da ngay am par weer. bu dëgg moom laay am pour jour bu <laughs> eh, eh, dëgg. mais mais mba mais mais nag non déglu. yaa ma jiitu ci aar. waaw dëgg <laughs> waaw oh, doore bi. Ah, ah lii. lu ne fànn kenn du ko jeex. waaw waaw ah oh mais Paul. amal dëgg sa ndey ma oto bi ma oto bi sax nga la. non Paul yi moom problème. waaw waaw ndeysaan oh. non non yow yaa fi dàq. mu ngi mer de daa daa mel ni Fatou mu ngi mer de. yaa fi dàq saaga. ni nga yàggee caa amoo amoo moto. yaa yaa ko ma caa def ci ñaari at. du dëgg yow yow wàllu dëkk moo la démarré. waaw mais sant yàlla. moo la caa man nag damaa dem ak sama foofu. yaa dem ak sa foofu Bas. eh Bas Bas vraiment. yow yow doo arrêté yow.